salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. fii ci Dakar capitalu réew mu ñuy wax Sénégal mbooloo mu ëmb ay doomi réew mi bokk ci ay mbootaay yu fasantikoo yii di ay syndicat yuy taxaw ci wàllu njàng ak njàngale yii di ay syndicat yuy taxaw ci wàllu liggéeykat ak ak secteur bu mën a doon muy centrale syndicale yii di ay mbootaay yu ëmb ay imaam ak ay duaat ay wootekat ci yoonu yàlla yii di mbootaayu société civile yuy dox ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yii di ay mbootaay yuy dox ci dimbale doomu aadama yi ñu koy wax wàllu social yii di ay mbootaay yuy wax ci nekkinu doomu aadama ci kaw suuf yii di ay mbootaay yuy wax ci wàllu njàng ak jàngale ak lu ko jëmale kanam ñooñu ñoo takktoo nekk wenn say tuddee seen bopp taxaaluf al watani li daami al xadiya muy alliance nationale pour la cause palestinienne ñoo woon tey taskatu xabaar yi ngir joxe seen taxawaay joxe seen gisin ci liy xew réew mu ñuy tuddee Palestine taarix dana bind ne bi am na réew mu ñuy tuddee Palestine mu am ay doxandem yu leen fa fekk ñu tuddee leen banu Israël wala ay israélien wala ay yahud ñu nekkoon fa ay wàlliyaan nekkoon fa ay doxandeem nekkoon fa ay émigré ñoo fa doon liggéey fexe ba samp fa seen tànk fexe ba samp fa seen toogaay mujj di buux waa réew ma ngir nangu ko adduna bi mu am ñu ànd ñoom ci pexe moomu pexe moomu mooy fexe ba ñoo ñooñu doon ay doxandéem am réew mu ñu moom ci biir réewum jàmbur Nations Unies def ci benn jéego gannaaw bi mbir mi amee ay xeex yu baree bari ay bakkan yu bari tuuru ci jéego yi bokkoon na ci nañu xaaj réew mi jox ñi Palestine jox ñi Israël ñenn ci waa Palestine d'accordoon ci waaye li ëpp ci ñoom nanguwuñ ko mujj gi mu mel ne ki nga xam ne moo doon wàlliyaan moom lañ ko seddoon sax mujj na ko xeeb ba continuer di bunduxataal boroom dëkk ba ba li ëpp ca réew ma tey ñoom ñoo ko yore benn wàll bu néew moom la waa Palestine dese mooy Gaza ak al Quds te Quds sax du lépp lenn rekk la ci Quds ak ay village benn benn dëkk boobu ñuy wax Israël continuer di leen noot di rey di yàq ay tool di mabbal ay bâtiment di nangu ay suuf di fa tabax ay dëkkuwaay di woo seenu xeet yi nekk ci Europe ak yi nekk ci asi ak yi nekk même Afrique flasha yi jóge Éthiopie ngir dëkkal leen ca ba ñu mujj nekk aw xeet wu am doole ci wàllu nit ci wàllu dëkk ci wàllu doomi aadama ñu mujj nekk aussi aw xeet woo xam ne am nañ doole ju bari lool ci wàllu armement ba jàpp nañu ne sax ci kaw suuf amul mel ni réew mu ëpp xarañte waa banu Israël ci li nu ñuy xeexe nu ñuy geere nangu nañu ne aussi amul menn réew mu ko ëpp xerañte ci li ñuy tuddee maanaam agent secret maanaam alma al musaad al israeli loolu tax waa Palestine yaccaaraluñu dañoo bëgg a seenum réew moo tax ci seen biir ñu amal kuréel gu ñuy tuddee Hamas al xaraka al islamiya lil muqaawama ñooñu mu am ci ñoom benn branche bu ñuy tuddee kataib ashahid izzuddin al qassam ñu liggéey ci suuf ba tàggat seeni ndaw liggéey ci suuf ba jéem a am armement boo xam ne même bu tolloowut ak armement bu ki leen am daañu mën a wane ne ñoom lii ñu leen noote neexu leen ñu xeex xeex boo xam ne fajaru samedi juróom ñaari fan ci weeru octobre àdduna du ko fàtte ñu def ay pexe ba dugg ci seen barab yooyu ñu nangu woon ci ñoom te waa banu Israël nekk fa ñu xeex ak ñoom rey ci ñoom ay junni yu bari wala boog ay téeméer yu bari yu romb junni muy nombre boo xam ne mësta dee ci waa Israël bi xeex bi tàmbalee seen digganteek araab yi moo xam 67 la moo xam 73 la loolu li mu wane mooy ku ñu not di la puus ba nga sës ci ab miir bu yàggee da nga jëngu ñooñu nag dañoo jëngu bëgg a libéré seen réew li metti ci mbir mi mooy adduna bi li ëpp ci ñoom dañoo tuddee jëngukat yooyu ay terroriste te ñun ñu nangu ne ñooñu duñu ay terroriste ndax ku ñu fekk ci sam réew bëgg la koo génne nga lànk buñ la tuddee terroriste kon ka joxe réew ma xaw ma luñ ko war a tuddee sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci benn xadis ne benn saxaaba da koo laaj su amee ku ñëw ngir jël sama alal nu may def mu ne ko lànkal mu ne ko su ma ëppee doole xeex ak man mu ne ko nga xeex ak moom mu ne su ma rayee mu ne ko nga dem àjjana mu ne su ma ko rayee mu ne ko mu dem sawara waa xamaas xadis boobu la ñu gëm jàpp ne dañoo war a aar seen réew kon bu amee ku ñëw bëgg koo nangu dañuy xeex ak moom loolu moo tax bu leen keneen tuddee terroriste ñoom tuddee wu ñu seen bopp ay terroriste bu leen keneen tuddee jihadiste ñoom nangu nañu ne ay jihadiste lañu ndax jihadiste mooy kuy xeex ngir nangu lu ñu bëgg a nangu ci sa lo sa ci yow ci doole te dañuy wax naan ma uxiza bil quwa la yustaraddu illa bil quwa loo xam ne doole lañ ko nangoo ci yow doole rek moo koy delloosi ci sa loxo kon ñooñu ñun duñu nangu baatu terroriste ñu leen koy tuddee mbooloo mi moo tax ñun ñu wax ne ñooñu loolu ñu def jihaad la fii sabilillah moo tax ñuy ànd di leen ñaanal yàlla yal leen yàlla jotalewaat ci seenum réew lépp mat lépp yemb lépp doon benn beneen bi mooy ñun waa taxaluf bi ñi ngi wax ne doomu aadama yi yi nekk ci àdduna bi yëpp bu fekkente ne ñàkk a dafa am ci àdduna bi dañoo gis ne àdduna bi yëpp dañuy takkutoo ngir xeex ñàkk a googu noonu la amee woon Afrique di Sud ñëpp xeex takkutoo fexe ba la fa amoon muy apartheid mu jeex yaakaar naa li am Palestine moo gën a metti li amoon Afrique di Sud kon lu tax ñu nattal Afrique du Sud ci benn loxo bëgg na tale waa Palestine ci ay baaraam loolu ñun dañoo gëm ne ñàkk maandu la ñàkk njubla beneen bi mooy li am Ukraine gis nañu àdduna bi yëpp ni ñu taxawee jàppale ko lu tax ndax dañoo jàpp ne dañ ko tooñ wala boog léegi tooñ dafa nekk ñaari façon tooñ boo tooñee keneen ku dul jullit kooku tooñ la mais boo tooñee jullit loolu kenn du ko tuddee tooñ kon adduna bi aussi war nañoo delloo war seen xel xool loolu nuñ koy attee bi ci mujj mooy ñun ñi ngi woo képp koo xam ne njiitum réew nga ngay président ngay buur ngay émir wala nga am force boo xam ne boo waxee ñu dégg la ñi ngi lay talal suñu loxo ne la waxal waxal ndax Palestine depuis samedi ba léegi li ñuy teg ci waa Gaza di mabbu immeuble lii ci ay civil ay jigéen ay xale ay ndaw ñuy dee kom ay weñ yu ñu puudar loolu yaakaar naa adduna bi war a ko seetaan ndax bakkan benn la deret yëpp a yem plasma moo ko composé bu dee nag deretu jullit ndox moo ci nekk amul plasma ñu ko adduna bi wax scientifique yi doon jàngale loolu aussi nañu ko leeral deret deret la bakkan bakkan la bakkan yëpp la ñu war a sàmm waaye ruux yëpp aussi la ñu war a sàmm moo tax ñu ngi wootee adduna bi borom doole yi borom kàddu yi borom mën-mën yi nañu jug wax balaa Gaza di raaf ndax Israël li mu bëgg mooy raafal ko ba mu doon ab doom li ñu bëgg mooy ñëpp ñu dëkk Gaza génn Gaza dem ci dëkk yi nga xam ne moo leen wër ñu nekk fa ay réfugiés politique wala de guerre loolu la ñuy bañal waa Gaza loolu la ñuy bañal waa Palestine loolu la ñuy bañal waa Quds ñuy wax ak ñooñu ne leen jàkka ji nekk al Quds muy al masjidul aqsa ñi ngi koy profané ñi ngi yàq ab ak teddaangaam nga xam ne jàkka la joo xam ne ñun jullit mooy ñetteelu jàkka ju am valeur ju am xadaasa ju am tedd ci lislaam Makka medinla la almasjidul aksala kon boobu bu fa doomi bani sahyun di jéego ak seeni dàll fekk ay jullit ñuy julli ñu leen di dóori lacrymogène di leen dóori bali fetal di leen bunduxataal ci weeru ak ci lu dul weeru bi yépp di seetaan kon ñun li ñu gëm mooy waa Palestine dañoo sës dañoo jàpp ne ñoom ñooy kumba amul ndey ci àdduna bi kumba amul ndey nag bu demee ba sës bu doon day jël ay weyam jekkal ko jël ay weyam daas ko jëla ko gejj sax dana ko def te ñun dañoo jàpp ne foofu la Palestine tollu ay wela am defar na ko daas na ko mi ngi koy gejjee amut leneen lu dul loolu loolu nag lañuy wax ne jihaad la fi sabilillah xeex la ngir libérer sam réew kon moo tax ñun ñi ngi woo suñu réew mi nga xam ne ci lañu nekk muy Sénégal nga xam ne Sénégal am na taxawaay bu rëy bu mu am ci Palestine depuis 1976 ba léegi taxawaayam boobu la ñu bëgg mu gën koo yeesal ci jamono ji lañ ko gën a soxlaa mu taxaw taxawaay boo xam ne du ne faruma kenn même bu faruta kenn xam na ñaari réew yi kan moo ci am dëgg xam na ñaar ñiy xeex kan moo ci am dëgg kon li ko àdduna bi wooloo woon 76 ba tey kóolute googu ñi ngi ñaan suñu réew na ko dëggal ñi ngi ñaanal yàlla subhaanahu wa taala suñu mbokk Palestine yooyu yàlla delloo leen seen réew ci yëngu yi nga xam ne ñi ngi koy def aashat Palestinu xurratan abiyatan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu